gannaaw li nga xamante ne moom mooy music euh, break boobu noonu rek ñu continuer li nga xamante ne moom mooy up this morning ah fii nii ci fi nga xam ne moom mooy Star TV léegi nag ñu continuer li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi comme ni ma ko diggee woon rek ñu dugal ki nga xamante ne moom mooy gani bés bi ah, ngal kontong ah, wo kontondiro kola drong ah, kabri mbotanang wo sot music break drong nga mo mo tonto kontong ato na kontong ala kal tonto drong al ben noma kanjang mi yalong ko lem star tv ti nyama eh, ko nga fon nyamin drong wo music break kola drong ben na luntongol jiala woto sainten be min kela drong nga na luntongol kontong mi yalong ko wolom mr talti mr tal nuyu nenga ah maa ngi leen a fay kontaan trop bokk seen waxtaan tey. waaw ah, Mr Tall nag ah, mu nekk ki nga xamante ne moom mooy spokesperson bu United Democratic Party ah, suñ ne United Democratic Party nag fu mu nekk nii kenn du laajte kan mooy UDP wala ñan ñooy UDP parce que nekk nañ political party bi nga xamante ne bi nga xamante ne mbir mi coowoon cooloon na ñu gis ñu béy seen waar yëngu fii li nga xamante ne moom mooy ñaar fukki at di ko. xeex rek ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy gu fi nekkoon waaye 2016 ñu bokk ci coalition bi nga xamante ne moom moo fi génnee nguur gu fi nekkoon waaye sampa nguur gi nga xamante ne moom moo fi nekk euh, Mr Tall tey jii su fekkee ne dugg nañ ci nga xamante ne moom mooy UDP euh, kenn du nekk li nga xam ne lu ees la ci moom waaye ñu bëgg a waxtaanee li nga xamante ne moom mooy policy and programmes ak li nga xamante ne moom mooy méthodologies maanaam anam yi nga xamante ne yooyu ngeen a doxalee pro li nga xam ne moom mooy policies yooyu noonu ba askan bi nga xam ne ñoom ñooy eewoo si biir mi mun a xam mébét yu yi nga xam ne ñoom ñooy UDP am waaye tamit yan anam lañ bugg a firndelee li nga mën a ne ne moom mooy mébét yooyu ak naka la moo njëriñee askan bi. jërëjëf euh, ci li ñu invite euh, ñu bokk ci waxtaan bi yàlla def na tamit euh, ajuma incha allah ñu am ñaar fukki at ak ñetti ñetta ci dunda as a political party 23 August. mooy baat bi UDP euh, ñu ngi faskee ne pour continuer di jéem a implement euh, suñ programme si ak suñ activité si UDP euh, comme ni nga ko ni nga ko waxee mu ngi dund fii as a political party si lu dem ba ñaar fukki at ak ñetta léegi nii waaye parti bi biñ ko door ba tey dañ am constitution constitution boobu nag mooy wone objectif ci parti bi mooy wone policy parti bi mooy wone structure parti bi li ci gën a am euh, euh, njëriñ ak li ci gën a am solo ci gàttal rek ci waxtaan bi mooy ne parti bi dafa bugg a internal party democracy euh, loolu lan la firi lim firi mooy ne parti bi ku ci bokka yaa ñëpp ci am pour nga nekk ci euh, euh, boppi parti bi wala pour nga nekk ci regional euh, unity parti bi wala pour nga nekk député yii yëpp yaa ngi ko amee parce que constitution bi moo ko tëddalee boor et constitution boobu nag saa yu nekk dañ ko dee seet gën koo beesal try pour jamono ji lim laaj mu ànd ak moom waaye constitution bi doo ko mën a beesal fekk demuloo congrès ñu ngi mujjee am suñ congrès décembre 2018 parce que loi bi dafa wax ne ñaari at yu nekk war ngaa am congrès ci congrès boobu ah, seet nañ suñ constitution bi génn nañ ko ah, ah, beesal ba pare tamit am nañ ay resolutions resolutions yooyu la ñoo jéem a try fu mu nekk nii ñu translate leen into policies comme ni nga ko waxee li ci gën a fés ci résolution bi mooy ne ñun dañ gis à ce parti ne jigéeni Gambia euh, ñoo amee réew mi ñoo amee jàngi xale yi ñoo amee suñ naako yi ñoo amee suñ kër yi euh, luy dox Gambia fii yàlla ak jigéen yi sax surtout suñ parti bi ndax ñun suñ parti bi 2016 euh, réeréewu la mbir biñ biñ daanoo suñ kaw youth leader bi Ibrahima Solo Sandeng dóor ko ba mu dee et suñ parti leader génn ak exécutif bi yëpp ñu jàppaleen yóbbu leen kaso ndax loolu si loolu lañ am rek yóbbu nañ leen sax ci tribunal bi yóbbu nañ leen court ñu àtte ñu tëj leen euh, lu dem ba ci euh, ñu ne ñetti at parce que dañ génn di ñaxtu ñu ne amuñ pamit te peaceful protest àddina si yëpp xam nañ ne loolu soxluloo pamit euh, waaw waaye pour gàttal rek euh, biñ nekkee ci kaso bi noonu bi ñoo wax affaire yi coalition 2016 suñ deputy party leader mooy woon acting party leader aji euh, Yam Seka euh, moom amoon na coobare pour offer boppam as a candidate waaye dafa step back mu tànn keneen waaw waaye balaa ñu ñëw si euh, tànn bi yaa ngi junja euh, mbir yu am solo euh, si li nga xamante ne moom mooy léegi nii wax nga ko ah, xam naa du ñaaka nag surtout di Aji Yam Secka di jigéen di ñëw si li nga xamante ne moom mooy di Calamar Revolution. waaw waaye balaa ñu dugga si si yooyu noonu yëpp ñu delloowaat tuuti rek kaw comme ni nga xam ne noonu nga ko waxee 23 of la loolu aajuma bi nii buñ dégmal si la mm-hmm. wante su ñëwee si li nga xam ne moom mooy internal li nga xamante ne moom mooy party policy bi tey ji suñ ko déggee. si Mr Tall xanaa kon ki nga xamante ne joinoon na political party bi en 2000 and li nga xamante ne moom mooy six hmm. ak man tey su ma ñëwoon wala keneen mu ñëw bugg a join political party bi en 2000 and li nga xam ne moom mooy 19 hmm. da nga bugg a wax ne su fekkee ne sukkandiku nañ si seen policy nit ñu ñu noonu ñoom ñoo am lu anglais de war longevity amut fa waaw loolu mooy loolu mooy dëgg loolu moo am tamit ndax di nga gis ne suñ congrès bi ma doon jéem a junja affaire am ah, ñu bëri ñëw nañ bokk si exécutif bi seen fe fe fe si UDP eggul sax ay benn ñaari weer. waaw ñoom ñëw nañ bokk nañ ci exécutif ku mel ni Tombong Seydi ku mel ni former euh, naam mi euh, APRC bi Suku Singate euh, ku mel ni Lamine Keba Jammeh ñii yëpp ñu ngi ñëw bokk UDP ci ci ay weer yu néew balaa congrès so léegi ñun si exécutif bi bokk nañ si ñuy def décision si ñu ngay def programme ñu ngay def activities démb rek maa ngi gis benn programme am na ñu jàppa euh, Lamin Jammeh fale ci Iliasa bàyyi parti so parti bi ku fa ñëw bokka si danga danga da ngaa bokka ba jeex ñëpp a ci m ba pare amut xaj ak seen waaw euh, suñ ñëwee si anam boobu noonu euh, ndax dinañ ko mun a gisee mu nekk li nga xamante ne moom mooy an open policy way bi nga xamante ne dafa wane ne euh, nekkal doomi réew mi rek am li nga xamante ne moom mooy kéene gi pour fas yéene bokka wala nga am common gis-gis maanaam gis-gis bi nga xamante ne méngoo na ak parti bi lu mu bugga wala li nga xamante ne moom mooy ñàkk ak am mbooloo moom moo ko waral su fekkee ne gis nañ anam bi parce que suñ ko waxee dina am ñi nga xam ne ah dinañ ne amul mbooloo moom moo tax diw sangam barki démb la ñëw mu dugga si wala nag euh, policy bi si boppam comme ni nga xam ne loolu la ñu wax te policy and programmes moom si boppam moo bindoo li nga xam ne su lim bi yokk woon sax hmm. euh, still it is the same policy waaw noonu la noonu la demee euh, ba pare dinaa la wax sax another incident boo xam ne man dama ci bokka parce que man formally maa ngi join UDP sometime early in 2017 si laa ñëw bokka formally te bi maa bokka tamit dama wax gars yi ne leen man bugguma place dama bëgg a jàng naka lañu doxalee politique ci jamono ji dispensation bi ñoo jaar ni transition bi baax na rek pour ñun ñu jànga ci ñi nga xam ne yàgg nañ ci affaire yi waaye yàlla def uh, ci lu gàtta rek ñu am uh, kóolute ci man uh, jox ma position bi as party spokesperson loolu bi mu xewee eh, li party leader bi waxoon ak executive bi mooy pour ñu dem organise primary Euh, élection bi war a am fële euh, Brikama West Coast Region li xewoon dañ defoon primary euh, ñetti candidate ñoo demoon kenn ki daanu mu des ñaar bés boobu sax mënoon nañoo def primary bi affaire yi jee waaye waa Brikama yi saka député yi ñi nekk foofu noonu current chairman bi ànduñoo ak moom ñu ne daal kii euh, dafa nekk nit koo xam ne daal UDP du mun a wéeru ci gannaawam so ñoom daal bëgguñ ca ñi nga xam ne ñoo ñoo taxawaloon UDP foofu noonu ñooñu yëpp ñu ne euh, chairman Sonko kooku moom mu sa nekk seen candidate waaye boobu ci jamono primary si la si jamono jamono primary si la so waa regional euh, bureau bi ñu binda Euh, euh, parti exécutif bi ne leen ñun de ñun am nañ ay candidates dañ bugg a taxaw pour chairman bi waaye suñ primary bi ba tey munta am primary yëpp xew nañ dem mu des suñ bos te léegi tey euh, mayoral election bi ñëw wala chairman election bi ñëw so exécutif bi sas ma ne ma demal foofu noonu ak moom ti demee nga def primary ku win nga xam ne nit ñi kooku lañ bugga te jamono boobu yaa ngi eesi parti bi. maa ngi eesi parti bi. ma dem xaw ma xaw ma chairman bi koren chairman bi ak kitaaw ak moom Fatou Thiam waa Sukuta. waaye ma dem ma ne leen man de exécutif bi ñoo ma yónni ñu ne ma conduct primaries fii ñu ngi ko ko ñu ngi def primary bi opposite uh, Gambia College Regional Education Office bi fa lañ defee primary. Mm-hmm. luñ suñ sarta yi parti bi teral yëpp yooyu lañ juus ñu conduct primary bi. ñépp gis ne Koren euh, Thiaman bi dafa win doomi parti bi moom lañ bëgg a mu nekk seen représentatif xaw ma ko guddi xaw ma ko bëccëg xaw ma faat caam xaw ma leen noonu kenn xaw ma ci leen loolu tax parti bi sax yóoni ma fa ne man benn dama indépendant mhm. ba pare ees naa ci parti bi ba nga xam ne euh, bilonguma su ma benn faction la so loolu da man lim ma lim ma woon ak lim ma jàngal mooy ne rek parti bi euh, parti Real euh, Democratic Party la euh, Progressive Party la parti boo xam ne la li nit ñi bugga loolu laa jéemat a mébét jéem koo def mu nekk digga mu nekk loo xam ne dafa mën a taxaw suñu kanam Euh, dégg nañ Mister Tall mu ne euh, li nga xamante ne moom mooy open policy bi euh, nekkul rek li nga xamante ne moom mooy dafa based on si li nga xam moom mooy di numbers ne amuñ ne moom mooy principle bi nga ne dañ ko góom ne soo mooy political party foog nga jox ne ku nekk moom mooy wàccuwaayam ku fa toog depuis li nga xamante moom mooy buñ sasee di li nga xamante moom mooy 1996 ak ku fa ñëw li nga xamante ne moom mooy es ki nga xam ne am na xam-xam bi nga dénk ko place bi ku wax loolu mooy nga xamante ne moom mooy Mr Tall di spokesperson bu euh, parti UDP di United Democratic Party ñu ñëw bi léegi rek euh, si beneen anam bi nga xamante ne junja nga ko euh, si li nga xamante ne moom mooy jigéen ñi parce que bokk na si li nga xamante ne moom mooy policy léegi nii junja nga ko ñu ko ooyee li nga xamante ne moom mooy women empowerment lu bëri soo waxee dañ la ne UDP as a political party gomoñ li nga xamante ne moom mooy women and youth empowerment Mr Tall naka nga gisee loolu noonu. waaw loolu moom euh, daaxa ko rek euh, ba pare leeral comme ni ma ko waxee ci doorin bi bi ñoo def coalition bi kan mooy woon góotu passé ni UDP jigéen la mooy woon acting party leader bi moom moom si coobareem la jóg ne na na keneen euh, jàlla moom dina support kooku waaye li ma wax tamit ci congrès bi ñu am 2018 mhm. dañ def foofu résolution ñu ne place yi nekk UDP yëpp boo xam ne dañoo taana nit dañ laa elect yëpp thirty percent at least thirty percent. that was at the congress. at the congress bi la woon in 2018. waaw ok at least thirty percent dafa war a nekk jigéen. léegi euh, bu yàggul refa two three weeks ci gannaaw ñu ngi ta taseeg waa women's bureau uh, balaa loolu tasee nañoo tamit Westminster Foundation ñu explainal leen ne leen euh, ku mel ni Yakumba Jaite primary moo ko moo ko daaneel. ok Fatia mi ma laa wax ni primary moo ko daaneel. waaye du ne amuñ euh, euh, gis-gis bi au buga buga bi pour participer in elective national politics. li ñoo li ñoo wax rek mooy ne réew mi. ci boppam ñu ñoo war a jóg ñun Gambien yépp ñu d'accord ne suñ jigéen ñi fuñ leen teg seen place passé na loolu. ñun as a nation ak as a people dañ war a decide loolu ndax dangaa gis eh, ñeneen ñi seen jabar suñ buggee jóg ci affaire politique ñu ne dañoo dogoog ñoom dafa isi jafe-jafe seen sëy eh, it's not du du ne man maa war a wax loolu diggante jëkkër a jabar loolu diggante jëkkër a jabar la waaye am na cultural reasons yoo xam ne eh, ñu ngi si dëkk bi tax nañ ba nga am ne jigéen ñi ci yu bari duñ si dee mun a bokka because aada bi ak cosaan bi moo leen moo leen tere loolu ñu bëri dañoo dem ba nga xam ne euh, euh, jamono am amee toppatoo kër toppatoo njaboot passé nañ ko si la ñoo mun a commencé sax di jéem a yëngu ci affaire yi politique waaye ñun dis euh, thirty percent nag dañ ko bugg a try ak si nu mu gën a gaawee either ci constitution bi ñoo pareel si nii la wala ci national legislature bi ñu jéem a try pour bind ko tamit mu bokk ci luwaa yi nga xam ne suñoo tànna ci jamono bu nekk dañ dañ see boole loolu ne jigéen yoo xam ne am nañ qualification bi mun nañ koo def ñooñu la ñoo gën a soppa pour ñu ñëw ci kanam foofu laa bëggoon a ñëwee euh, Mr Tall suñ xoolee li nga xam ne moom moo xew si National Assembly elections UDP euh, win foofu seats yu bëri suñ xoolee li nga xamante ne moom mooy di local government ñu njëkkee ko si li nga xam ne moom mooy di ward councils mm. UDP win foofu toogu yu bëri si mm. euh, li nga xam ne moom mooy di chairpersons ak li nga xam ne moom mooy mayor si UDP win toogu yëpp bam des benn mm. waaye si ñii ñëpp Mm-hmm. Euh, ñi nga xamante ne moom mooy ñuñ tànn benn jigéen lañ fa gis mm-hmm. di mbéyoo bi nga xamante ne moom mooy Banjul euh, mm-hmm. force ñu use that opportunity rek euh, jaajëfal ñi nga xamante ne ñoom ñooy UDP pour produce li nga xamante ne moom mooy force mbéyoo bu jigéen si li nga xamante ne moom mooy si réew mi waaye ndax UDP su dooleeloon jigéen jigéen ñi duñ doon gën a bari indi National Assembly member si National Assembly bi jigéen ñi su UDP dooleeloon jigéen duñ doon gën a bëri si ward council si um, man foog naa ne ñun def nañ suñ kémtalaay kàttan parce que affaire yi ñaari boor la doo forcer kenn pour mu taxaw waaw léegi wax nga ne Banjul nga Banjul capital la Banjul mooy suñ réewi teeru important na trop pour ñu bàyyi xel loolu ne this is the first time jigéen taxaw foofu win fa te ña na ko fa taxawal UDP Banjul ñun ñëpp gisoon nañ ñaata nit ñoo bëggoon a nekk maire foofu mm-hmm. waaye kii moo nangoo ñëw ne dafa nekk ci ron UDP taxaw yàlla def na liggéeyam mu ngee wax pour moom affaire yi ndaw yi tamit nga seet ku mel ni Talib Ahmed Bensouda seen meeyoo yii yëpp daf laa woon ne la ñun parti boo xam ne la dañoo dooleel jigéen ñi dañoo dooleel ndaw ñi waaye du ne da ngaa forcer nit ki parce que da ngaa dégg saa yu nekk koo dégg mu ne la waaw moom am na xelaat xelaat yu rafet xelaat yu baax waaye moom bokkut parti moom dafa indépendant <laughs> loolu loolu si la bokka so uh, waaye gis nañ tamit bi taalib di taxaw ñaata ñoo taxaw élection ñëpp ñu ne independent apart from taalib léegi chairman yi PPP bi xaw ma secretary general PPP bi mhm. du moom it independent la taxaw te dafa lose élection bi just last year mhm. waaye léegi moom mooy parti leader UDA PPP mhm. so li ñoo wax rek mooy ne uh, nañ leen jéem a taxawal suñ parti yi ñu dooleel leen ñi nga xam ne foog nañ ne ñoom ñu ngi nekk uh, si seen diggi doole ay ndaw lañ wala jigéen lañ ñu ngi leen a invite pour ñoo bokka si parce que su fekkee ne ñoo nga bokka si comme ni ma ni ñu ko ni ñu dooree waxtaan bi amul dara benn gàllankoor buy nekk foofu noonu ni ma la ko waxee Yakumba Jayte dafa woon a taxaw moom a kii naka la tudd ah, ah, mais euh, kii euh, Madi Madi Cissé waaw Madi Cissé waaw Serekunda West Madi Cissé am euh, lifin bi le primary bi so affaire affaire affaire boobu noonu la demee waaye councilor si ak ward si taxawaloon nañ eet jigéen tri ñoo mun a win soo uh, soo soo ñu compare ak yeneen parti yi in that regard di nga gis ne definitely ñu ngi góorgóorlu waxuñ ne uh, you know uh, problème bi nañ ko solve ëllëg waaye ñun door nañ di jéem a seet naka la ñoo invité nit ñi jox leen xel bu daal nga xam ne soo bokkee ci jotaay bi amul place boo munta contrôle amul place boo munta nekka ñun loolu mooy suñ yëngu-yëngu taay yi suñ ñëwatee ba léegi rek si li nga xamante ne moom mooy euh, ndax proportional representation lañ ko ooyee wala euh, ñu ko mun ti ooyee euh, mooy li nga xam ne moom mooy 30 percent am nga xamante ne ñu ne UDP dañ am an insider si moo leen wax ne constitution ko bëgg a pour asi nga xamante ne moom mooy 30 percent representation pour jigéen ñi moo tax ñoom ñu gaa yaakamti rek boole ko si li nga xamante ne moom mooy seen policy in 2018. Hmm, loolu loolu moom amul amul amul benn am amul luñ bokk sax man man man man. xam naa ne euh, congrès bi man maa nekkoon di officiating personnel xam naa résolution si naka lañ ko tabee man dama si bokka dama si toog so ñun this euh, gender parity ak euh, gender representation loo xam ne la dañ ko miin sincerely because dañ feel ne once nga am jigéen ci ay place yeneen certain jikko daal dafa dee jógee parce que jigéen ñun suñ jigéen yi at least Gambia fii xameewuñ leen yaaxaa dañ nekk nit ñoo xam ne dañ am jom foo leen gis ñu ngi try si seen ususu yi la ñu ngi try seen small business si la suñ euh, yaay yi ñu ngi si seen naako yi am na ñuy jaay ay cere lu nekk la ñoo def just pour rek ñu nekk di dunda si dignity so lii dafa nekk loo xam ne it's a fundamental part of the party's ideology ak philosophy mais soo empower jigéen ñi you have solved the problem of the country parce que ñooñu toppatoo lañ xam seen aada loolu la leen may and moo ñu am leen si decision making di better for the Gambia so suñ ko déggee si Mr Tall mu ngi wax ne nekkul an insider moo leen hint ne constitution bi lii lañ si nama waaye ñoom seen góom-góom la AC ah, parti mooy parti United Democratic Party ah, nga tudd tuuti si ndaw ñi ah, xam naa ne dinañ ñëw si ndaw ñi it's obvious ne def ngeen fi ñaari jaloore wax nañ benn bi mooy li nga xamante ne moom mooy jigéen bi waaye ngeen génnee tamit li nga xamante ne moom mooy meew bu di leen ndaw ah, si li nga xamante ne loolu la gëstu wane si jamono ah, ngum ah, parce que xamaguñ luy ñëw si kanam waaye si jamono bi nga xamante ne moom mooy buñ dooree di saaleel li nga xam ne moom mooy meeyo ba tey ji fuñ toll yéen a a génnee meeyo bu gën a ndaw si réew mi góom-góom la wala nuñ ko dee waxee rek tombee non non góom-góom la parce que lii xew mooy euh, kii euh, Ahmed euh, Talib Bensouda dafa taxaw primary si primary boobu la winee kim win kooku eh, nanguwutoon sax dafa bëggoon a commencé ne dafaa dem independent nit ñi waxtaan ak moom uh, ba léegi sax isi na som uh, eh, réeroo ak ñagas yoo xam ne eew na ci li ma wax rek mooy ne su fekkee ne Ahmed Talib jógutoon ne dafa bëgg a nekk ak meeyoo ñëw ne moom UDP la bëgg a nekk ak meeyoo obviously duñ am situation boobu ñu fa nekkoon rek ñun ñu rek ñoo mun a taxaw because li maa wax rek ñu suñ internal party démocratie li ñoo wax ne ñun we are United Democratic Party eh, liñ miin mooy ne dañ bugg a bring all progressive forces together unite dem leen pour ñu build a different kind of nation ñun lii mooy suñ jumtukaay lii mooy suñ ah, jubluwaay te dañ yaakaar ne important na trop especially ci ndaw ñi ak jigéen ñi ñu jóg taxawal réew mi parce que réew mi su fekkee ne ndaw ñi bokkuñ ci ñi ko ñi ko euh, ga euh, euh, jubanti affaire yi dafaa nekk affaire boo xam ne dafa dellu gannaaw parce que ñi ñun ñi nga xam ne dem nañ ba mag nañ yenn façon yi mag yi am na yenn jikko yoo xam ne xëj na sax mënuñoo use laptop wala mënuñoo use social media dafa tax ba nga xam ne sa message ak sa activité si sax doo ko mun a présent ba nga xam ne ñu bëri nañ ko mun a dégg bu paree njëriñoo si da ngaa seet Euh, lu mel ni Star TV bi la ak Star FM bi ci diggante gàtta gàtta gàtta gàtta bi euh, naka ni ni euh, time bi gàttee mu ngeen establish mun a def lii yëpp loolu dafa wane rek ne da ngeen farlu dafa wane rek ne environment bi foofu ngeen jëlee seen inspiration di am façon ngi waxtaan yi parce que before 2016 waxtaan yi du daan mun a am yeneen fan yeneen façon ngi waxtaan a daan am waaye léegi fu nekk nii Gambien bu nekk gis na boppam mun naa yëngu ci yu bari te ci affaire media bi gis nañ ne foofu moom alhamdulilah waaye seetal économie bi économie bi euh, soo demee Kairaba Avenue cat ba cat indian si ak lebanese ak ñeneen ñoo fa nekk non gambians ñoo xam ne euh, kenn euh, merewu leen wala kenn waxut ne buñ fi nekka waaye dañ bëgg tamit suñ Gambien ñu bokk ci affaire yi économie bi bu baax a baax suñ ndaw yi buñ jaar ci dis baakwee di ci xaru man bi maa nekk xaleel eh, suma suma waa euh, suma famille suma yaay ak suma pa yëpp badi bu lañ jógee ñëw suma pa am kër Banjul am bitik Banjul every day suñ waa dëkk dañoo ñëw sa kaa su fekkee ne ñu ngi ci noor mm-hmm. nit ñi liggéey Uh, ak ak béy lañ xamoon business ak béy rather so dafa dafa mel ni Gambia within the last uh, thirty years dafa turn everything upside down doo daan gis benn foreigner bitik boo dem rek Gambien si la ak suñ mbokk yi jógee Sénégal ak uh, Mauritanie ak ak ak ak Guinée waaw waaw waaye ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu ak ñun yëpp benn lañ ñoo bokk jamono because uh, fu mu nekk Gambien yi bari nañ Gambien yi naar ak yu yu demee noonu just pour rek euh, daaneel wax bi euh, dafa dafa important fu mu nekk nii euh, pour ñun Gambien si ñu seet ne politique bi nga xam ne moo gën a important ci affaire yi ñoo yëngu yëpp lu tax waruñ koo jox ci loxo ñun ñoo xam ne xereñ nañ xam nañ li ñoo def mun nañ li ñoo def seen jànga egg na level boobu yéen mi dee tas xibaar loolu tamit war na bokk si seen waxtaan parce que dafa important ba nga xam ne dangaa xëy suba rek nga dégga ne kenaa ngi def audio di wax wax yoo xam ne waxi picca la wax yoo xam ne kenn xamul fan la jóge kenn xamul kan la waaye ku nekk rek fu mu nekk na comme ça journaliste nekk na political commentator you know lu nekk ngaa dégga si jamono ji limaa ñaan rek mooy euh, façon yi waxtaan yi ñu yaatal ko ñu yëg ne réew mi dafa soppi doxin te dañ soxla nit ñoo xam ne xam nañ li ñoo def xam nañ li ñoo wax mën nañ tamit li ñoo wax ne jox leen ma place bi jox leen ma place bi. because dëkk bi nag su su demutee su doxutee nit ñi foog ñu wax ko. réew mi su doxutee nit ñu wax ko dina ñëw si li nga xamante ne moom mooy compétence base bi ah, wanti ah, xam naa di nga nangutoo ne développement bu nekk dafaa am ci lañ léegi nii wax nga ne one of the trends yi nga xamante ne moom mooy yóbbu ah, li nga xam ne moom mooy addina bi mooy technologie te technologie dafa ñëw li nga xamante ne moom mooy social communication lu mel ni social media bi ak yeneen kon nag one of the major challenge mooy li nga xamante ne moom mooy di same issue ku am sa smartphone xëy send in sa information boobu nga mu nekk ay major challenge naka nga ko jàngatee rawatina si wàllum ndaw ñi. non ah, man fiil naa ne loolu euh, lu am solo la te loo xam ne la dafa am njëriñ euh, dañoo dégg si news bi international news bi à place yu mel ni Amérique euh, saa yu nekk ñu ne am na ñu jël fetel rey ay pare bind ci internet bi li tax ñu def loolu jumtukaay la liggéeyukaay la su fekkee ne nag am nga smartphone mun ngaa dem Google nga jàng about history Gambia. nga jàng about ñu mel ni euh, Land Repeaters ñu mel ni ñoom saafari maa ngi singaate euh, jumtukaay boo xam ne la euh, am na njëriñ waaye nag ñun ñu ñu ñu ëpp si ñun dañ ko defee foyekaay so dafa mel ni social media bi dafa explode am na ñoo xam ne ñu ngi seen njëriñoo bu baax parce que ñu mel ni Star TV alhamdulilah ku ko dégg la ku déglu programme yi ku seet ni ñoo analyser news bi ñëpp dañoo ne ah ñi dee ñoom xam nañ li ñoo def ñu ngi use social media pour yee Gambien si ba pare li gën am solo news bi dañ ko dee bind ci English yéen ngeen wax ko ci olof ak mandinka lii moom rek mooy yóbbu réew mi ci kanam parce que ñun ñëpp su fekkee ne ñu ngee wax benn làkk bi ñun ñëpp a ngee understand benn affaire bi ah xëj na yàlla ñu dimbale ñu mun koo safaral ci lu gaaw ba pare du du nekk ñiiroo eh, ŋaaroo so social media lu am solo la lu eh, lu bokk ci jamono ji la léegi waaye dañ war a bàyyi xel bu baax a baax lana lan lañ see def ak naka lañ koo def ba nga xam ne dafaa njëriñ askan bi Mister Tall ñu dellu si si li nga xamante ne moom mooy policy si euh, tey jii euh, lan moo nekk li nga xamante ne moom mooy euh, investment si nu mu gën a tënkee li nga xamante ne moom mooy investment policy bi nga xamante ne tey jii su réewi Gambia dénkoon UDP si nguur dinañ ko mun a asil mu asil transformation aussi yi nga xamante ne nga parce que réew mi suñ koom-koom bi di économie mënut a dem su fekkee amul investment policy bu baax. Euh, bokk na si li nga xamante ne gis nañ ko bu yàggut euh, mooy yeneen réew yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si West Africa euh, in January 2020 su fekkee ne tàggat bi ci ceeñut dinañ asi li nga xam ne moom mooy éco bi waaye suñ xoolee li nga xam ne moom mooy suñ koom-koom bi ñun ba léegi mënuñoo mutal ñeneen si fukki sarta yi nga xamante ne yooyu lañ tiral démba loolu moo nekkoon tamit waxtaan bi waaye tey jii su fekkee ne Gambien bi denka na UDP nguur Euh, lan nga suñu gën a tënkee rek lan mooy nekk seen investment policy pour mu transforme suñu économie bi parce que du ma la laajte économie bi moom noonu mel. <laughs> waaw <laughs> jërëjëf um, ñun euh, dañ gëm ne euh, li ñoo wax developmental state moom mooy suñu moom mooy suñu saafara developmental state yaa ngi ko am place yu mel ni Singapore place yu mel ni Mauritius place yu mel ni South Africa. wala liñ dee ooyee capitalist state capitalist state mooy state bi nga xam ne uh, investment boo xam ne dafa diis dafa am doole trop comme ça uh, yoon yeeg euh, affaire yi euh, euh, plane yi léeg investment bu am doole daal réew mi ñoo ko def ñun bugga nañ suñ eggee ci nguur gi ñu am li ñu ooyee sovereign wealth fund nga xam ne alali réew mi yi nga xam ne mel ni euh, Port Authority mel ni Gamtel mel ni NAWEC yi yëpp state owned enterprises lañ seen profit yi ak seen euh, euh, returns yi dañ bugga a ñu def ko ci poche bu mag boo xam ne dinañ si mun a jóg di def yeneen investment ci wa yan ci wàlli jàngam yi ci wàllu wér yaram lu mel ni national health insurance scheme am na dëkk yu mel ni Angleterre after second world war bi ñoom si lañ ko am so ñun eh, liñ for ne liñ liñ liñ nar mooy ne réew mi ci boppam state ci boppam eh, dafa mu war a mun a nekk ci business waaye daf du du nekk ci business ba nga xam ne dafa xatal doomi réew mi mm-hmm. waaye dañoo seet tamit eh, doomi réew mi lan lañ gën a soxla let's say affaire yi technologie affaire yi moto ñooñu yëpp ñu mun ko ici ba nga xam ne ku ko soxla rek di nga ko am ci njëg euh, bu yomba war nga see mun a def sax business ba nga xam ne di nga mun a euh, provide yeneen services ci technologie bugga nañ technologie transfer boo xam ne state bi ñoo ko nekk di supervise parce que li xew mooy comme ni ma ko waxee soo demee Kairaba Avenue di nga gis machine yu bëri foofu waaye seen caméra yi ngeen a use fii nii xëj na dina am benn benn ñaari bitik ko am waaye bayu fi noonu so tourisme bi tamit bi nga gis ne hôtel yi yi ci ëpp yëpp euh, du euh, waa réew mi eh, doomi réew mi ñoo ko moom wala business bi si boppam am la day gën a njëriñ ñu ne dem na bi twelve percent of the euh, national economy GDP bi ah. waaye Euh, soo demee boori Sénégambia ni place bi mel yooyu yëpp mun ngaa def investment foofu ba nga xam ne euh, dina gën a mun a euh, nàcca alal boo xam ne Gambien si dina dina leen njëriñ restaurant si fa nekk yi fa uppa yëpp du waa Gambie ñoo ko ñoo ko amee yooyu yëpp lu baax la because bugga nga foreign investment waaye baax na tamit am na yoo xam ne waa Gambia war nañ ko mun a defal seen boppa ñun suñ pati bés buñ amee government bi façon yi économie boobu la ñoo ici et developmental state state capitalism boo xam ne foo gis opportunity foo xam ne réew mi dina ko mun a njëriñ nga invest fa ba pare nga mun a ici yu euh, mel ni euh, cooperative banking lu mel ni islamic euh, economy islamic finance islamic banking am nañ islamic bank benn lañ am am nañ islamic insurance benn lañ am waaye bugga nañ pour ñu mainstream suñ whole islamic uh, heritage bi Gambia 95 percent muslim la soo demee London islamic economy bi mu ngi faa dox bu baax a baax soo demee ay Dubai soo demee ay Malaysia soo demee ay Indonesia so yii yëpp uh, bokk nañ si suñ uh, gëstu gëstu ne économie bi dañ ko war a uh, uh daal naka la naka la dee mun a njëriñee askan wi naka laa isee uh, kaaraange ak naataango ci ci réew Euh, nga wax lu am solo si biir lim bi lim nga bi junja euh, point bi nga xamante ne benn réew mënut a dem mu fàtte ko gannaaw euh, su fekkee réew mi bëgg naa dem di li nga xam ne moom mooy njànga parce que xam mooy réew léegi nii su fekkee ne UDP jox nañ leen li nga xamante ne moom mooy nguur gi ban méthode ban la ñu mën a assessé li nga xamante ne parce que ñëpp xam nañ ne day sa big gap diggante li nga xam ne moom mooy school to workplace Gambia soo xoolee number of graduates suñ dee am at bu nekka in all the sectors Mm-hmm. Uh, moo xam da si oh, li nga xam ne moom mooy higher education bi wala si secondary education bi dafa bari waaye suñu xoolee si bunta bi nga xam ne moom moo leen war a jël pour liggéey mu ngee gën a néew mm-hmm. uh, tey jii su fekkoon ne UDP jox nañ leen nguur gi mm-hmm. uh, yan doxalin la ñoo asi pour bridge that gap waaw xam nga dañu fu mu nekk àddina si ñu ngee wax ne ñu ngee dem ci di fourth industrial revolution boo xam ne dañoo yó dañoo jël technologie mu dimbale leen ci yu bari li ñoo wax ay artificial intelligence mm-hmm. yi yëpp yoo xam ne la àddina si ñu ngi see ñu ngi see yëngatu waaye ñun Gambia fu ñu toll fu mu nekk nii euh, soo buggee néeg bu baax daf laa dafa cher ba pare ñaareel xëj na ouvrier bi faa liggéey euh, xereñam bi des na tuuti euh, soo buggee sa moto mu baax dangaa dem ci fita boo xam ne xam na li moo def waaye dafa am lu ma lépp daf laa caaj du seer so ñun dañ foog ne am na euh, ci gaab bi nga wax nii am na solo torop pour ñu am li ñoo wax vocational ak technical education ndax GTTI sax looloo taxoon ñu taxawal ko si jamono ñun bi ñoo dem bi ñoo nekk xaleel biñ ko taxawal loolu la woon rek pour mu dimbalee euh, ñi nga xam ne xëj na seen interest nekkul ci dem am academic degree waaye GTTI fu mu nekk dem na ba ñu ne dañ ko bugg soppi def ko euh, science and technology university xam nga suñu gars yi tamit ñoom ni ñoo doxalee euh, maara di taani ñoom rek ñoo xam ne ñoo doxalee waaye euh, nga am university boo xam ne amangul ba tey campusam mu ngee mu ngee naka la tudda mu ngee luwaas waaw mu ngee luwaas si ñeneen ñu bëree bëri nga ne dangaa turn GTTI tamit into university loolu lu lu ñu war a xalaat la waaye ñun dañ gis ne dëkk yu mel ni Germany euh, dëkk yu mel ni South Korea euh, dëkk yu mel ni euh, Singapore ak India ñooñu dañ def middle ground boo xam ne diggante university programme si la ak ak high school bi am nañ beneen stream boo xam ne dafa jàngal nit ñi métier ak mun-mun xam nga jàng ak mun-mun duñ deena waaw yeneen mun-mun yi nag jarut sax nga dem toog classroom eight ba fa four or eight ba two da dafa nit rek pour nit ki won la la nii lañ ko dee defee waaw ah, dangaa gis ne soo demee ci marché yi gaa yi ngaa defar ay sujeer foofu sujeer yoo xam ne macha allah foo leen yóbbu si àddina si ñu ko gisee ñu ne la ah, lii de moom rafet na te ñooñu ñu ngi koo defaree ci ay armi arminier yu ñu for nii waaw waaw waaw so yii yëpp dama fiil ne su fekkee ne am nga government bu euh, xam li moo def dafa toog organise nga xam ne ñi nga xam ne ñooy for arminion yooyu noonu euh, am nañ fu ñoo dem rek déposit ko foofu ñooñu tamit transform ko ak mu am euh, xëj na naka la tudda ingénieurs yoo xam ne dinañ leen mën a dimbali ci ay design modern design Seetal Foundry bi bi ñu toog si may mu nekk GTTI amul benn njëriñ pour kenn mu ngi fa tegee nii rek mel ni mébal so yii yëpp dafa nekk yoo xam ne eh, be soo seetee réew mi eh, government bi ci boppam place yu bari laa luwaas ñu ngee luwaas ah, ñe at least ñetti ministres yi man xam naa leen ñu ngee luwaas mm-hmm. environment mu ngaa luwaas xat-xat lu place boo xam ne higher education mu ngee luwaas ultérieur ci boppam mu ngi luwaas kañ la ñoo toog ak ñan la ñoo jël euh, liggéeykat ba nga xam ni ñu mun a bilal suñu building si ci lu gaaw parce que building si tamit dañu war a soppeeku fu mu nekk nii jamono ji paaseen léegi yaa ngi am soola fu nekk yu bari ñu mun nañ koo incorporate ci seen ci seen building bi man am na time time boobu maa ngi maa ngi liggéey ci chamber of commerce bi ma dem Sénégal ñu dem benn euh, boori jam ñaajo balaa seen airport bi di benn français lañ fa fekk mu ne mu ngi jógee Morocco mu ne bi mu demee Morocco li mu fa fekk mooy ne you know uh, higher education bi ak tertiary education sector bi soo demee ministre bi daf laa woon cabinet yu first step ak uh, diplôme waaye <laughs> xale yi mënuñ dara so Sénégal dañ leen aussi uh, yoon naka nga koo liggéeyee so dangaa dem physically nga gis ko taax level bu nekk ba taax bi complete campus bu mag lañ am ni di nga am benn hundred meters of yoon every layer di nga ko gis nii so yooyu façon yi jàngale yooyu foog naa ne su fekkee ne isi nañ ko fii Gambia tamit ah, dina dimbale ñu bari nga xam ne xale yi dinañ mun a ah, am ah, métier am xam-xam am mun-mun yoo xam ne dina mun a yóbbu suñu réew mi ci kanam Euh, ba léegi rek fàttali yéen a ngi déglu Gambi up uh, this morning uh, fii nii ci fi nga xamante ne moom mooy si TV ki nga xam ne moom mooy suñu gani bés bi di Mr Almami Tall spokesperson bu uh, United Democratic Party Mr Tall tey comme niñ ko waxee duñ toog di waxtaan lan mooy UDP rek parce que di mi xam nañ ko waaye ñu dugg si li nga xamante ne moom mooy policy and programmes junja nañ lu bëri waaye baraa ñoo jeexal si li nga xamante ne moom mooy Ah, policy and programme si ñu ñëw si anam yi nga xamante ne yooyu mën leen koo doxalee ñu xoolaat beneen mbir mi nga xamante ne Gambia more or less ah, dégg nañ depuis li nga xamante ne moom mooy fooma nguur gu fi nekkoon di Sir Dawda ñëw ba nguur gi nga xam ne moom moo fi jógee bu yàggut ñëpp ko wax jël Singapore as an example ah, tey jii nguur gi nga xam ne moom fooy nekk mu ko jël wanti euh, gëstu wane na ñun ñoo amandoor li nga xamante ne moom mooy moom suñ boppa anglais di ko wax independence euh, ñoom li nga xam ne moom mooy seen koom-koom ak suñ koom-koom mu tolloo woon jamono boobu noonu tey jii suñ koom-koom mënuñoo ko méngale waaye gëstu buñ def wane na ne soo gisee loolu mu am mooy ñoom fu ñu nekk moo gën a challenging parce que ñoom ñu leen wër yëpp ay superpowers lañ waaye benn natural resource lañ jëfandikoo mu yóbbee leen fu nekk di géej gi yàlla may nañu géej boobu noonu tey jii su fekkee ne réew yi Gambia dem ko ne UDP li nga xamante ne moom mooy nguur naka la ñoo jëfandikoo jéej bi bi nga xamante ne askan buy ewoo fii dinañ gis seen boppa ah, ak tamit li nga xamante ne moom mooy renewable energy parce que ju nga ko tuuti ñaari yi ah, lu am solo la man ak yow ak keneen ak keneen lu moo fay si courant dafa bari wax nga fi lu luwaas bi boot courant dafa seer ah, suñ xoolee li nga xam ne moom la ñoo fay courant compared to yeneen réew yi dafa seer ñaar yi nii naka ngeen ko doxalee pour ñu njëriñ bi soo leen si waaw Singapore ñoom seen boppa ah, ñoo ko dee wax ñu ne ñoom liñ am li leen gën a dimbale mooy nit ñi fa nekk ak seen jiit parce que kooku uh, yàlla def ko may nga xam ne uh, bëggutoon dara ñoom dañ bokkoon fii sax Malaysia lañ bokkoon ba baax na rek pour ñuy wax affaire yi niñ ko ni mu tegee ku mel ni prime minister Lee Kuan Yew dañ bokkoon ci Malaysia Malaysia ne ne Chinese yaa fa bëri ñu daxaleen ok Singapore dafa mel ni soo soo de soo de soo di eh, xaajee Gambia ñaar Singapore noonu la benn xaaj bi mooy mooy Singapore yëpp mu ci mu ngi ci géej gi ndox sax ndox bu ñoo naan dañ ko daan jëlee Malaysia waaye nit ñi ñooñ foofu lañ def investment bi foofu lañ jóg ne ñun duñ nekk ay ndóol ba pare duñ nekk nit ñoo xam ne dañ jaafuus so réew mi lim am yëpp ci mun-mun ak ci euh, euh, jàng ak xam-xam moom lañ boole jaay ak jëndante bi safaar bi le dafa am euh, njëriñ ci boor yooyu parce que time boobu li nga ko ni nga ko waxee la super power waaye ñoo nekk boor yooyu réew yi fa nekk yëpp a uppa waaye mu ngi amoon port port boobu ku fa ñëw rek soo ñëwee coste nga nga jaar ndax Gambie sax amoon na time meloon nañ noonu fii ci West Africa man bi maa dem primary school ak bi maa dem nekk high school noonu la poori Banjul bi meloon saa yoo demaan tefes mu ngi fees tepp sénégalais malien guinéen eh, eh, ku nekk et bu nekk Afrique fii balaa 2000 poori Banjul bi de lu nekk dafa ñëw ñu yóbbu so ah, loolu loo xam ne la dafa des ci policy bi policy bi nag mooy comme ni ma la ko waxee ñun lañ gëm ne state bi moo ëppa nit ki xaalis state bi su cuusee ne dafa bugg a nekk capitaliste waaye lii suñ koo def nag dañ koo def mu leer dañ bugg a transparent ak accountable uh, mechanisms yoo xam ne ku nekk su si ñëwee def ci mun a bokka port bi ñu ngee wax expansion am mhm. for the last twenty years man remember naa bi ma start suma carrière ci attorney general's chambers bokkoon naa ci task force okay. pour afdaay ñi fa dëkka ñu compenser leen ñu jox leen place <laughs> absolute waaw so ba tey ba tey bi expansion am na ñi nga xam ne jox nañ leen place sax waaw waaw so so so li maa wax rek mooy ne uh, su fekkee ne euh, ñi nga am euh, ñi ñi ñi nekk di jiite place yi ñi amee di toppatoo place yi gis nañ uh, gis bi Singapore gis Eh, Gambia fu mu nekk waroon naa passé fu mu toll nii ñun nag suñ amee eh, government dañoo make sure ne eh, lu mel ni poor bi lu mel ni ferry service bi lu mel ni bridges yi yii yëpp dañoo gën a bari dañoo gën a yokku ngir réew mi mun a dem ñëw ci gana ci ci ci anam bu gaaw ci yoon boo xam ne amul seer amut amut bari wax because wax ji moo gën a bari ci réew mi fu mu nekk nii foo dem rek ñu ne la lii waaye eh, géej gi ñu am nii li ci gën a am solo mooy eh, jën yi ci nekk ñun Gambien si kenn mënu laa wax du ministre du béykat bi du nappakat bi kenn mënu laa wax suñ jën yi naka lañ mel léegi soo demee marché ñu ne la benn sida eh, fifty dalasi yeneen nga dem ñu ne la two hundred dalasi yeneen nga dem ñu ne laa jën amut so yii yëpp dafa nekk things yoo xam ne war nañ ko mun a gestu waaye ñun am nañ ah, ndoxi xorom jóge ah, Banjul fii dem bee ay jaara sooma te suñ ah, suñ géej gi taxu ko rëy foofu mun nañ faa def aquaculture yii yëpp programmes la yoo xam ne fokk rek government bi wala state bi bokk ci su fekkee ne state bi bokk nañ si dafa create employment nga xam ne jigéen ñi suñ ñoo dem yoxo si nii suñ demee ndax am nañ euh, euh, sàkku bu fees ndax am nañ pañe bu fees weer su dee dañ leen a fay waaye dañoo organise loolu yëpp nga xam ne ku nekk si li ngaa yëngu rek dañ ñëw dañ laa ñëw fekk foofu sotle la dimbali la noonu la loolu la euh, developmental state day mun a def nga xam ne kenn du def si gannaaw xale yi dinañ dem jàngi lopitaan yi dinañ am garab dinañ am docteur ah, liggéeyukaay yi tamit ku fa dem rek dangaa liggéey du ne da dem rek toog waxtaan wala di seetaan TRRC wala di seetaan Nigerian film loolu moo loolu mooy xew si dëkk bi. loolu mooy xew te loolu nag ñu know ñun ñoo ko nangu waaye soo demee place yu mel ni Singapore xam nga ñun ñu am na ñoo xam ne yàlla may na leen dem nañ gis nañ place yooyu gis nañ ay Malaysia gis nañ China gis nañ Singapore gis nañ India ñooñu yëpp eh, same level bi lañ nekkoon comme Gambia waaye dañ jóg farlu ci ne ñoom li ñoo lekka seen dëkka laa jóge te dañ ko organise ba nga xam ne fu nekka du bota du yogoot euh, mooy sow bi le yëpp ak ni ñoo bari yëpp ay one billion two billion yii yëpp dafa des rek ci euh, ñi nga xam ne ñoo jiitu ci réew mi Ah, nga wax lu am solo ah, Mr Tall mu ne gis-gisam mooy ne ah, su fekkee ne bugg nañoo dooleel li nga xam ne moom mooy suñ koom-koom bi njëlbeen bi foog ñu am li nga xamante ne moom mooy commitment bi nga xam ne moom moo la nit ñi def waaye tamit foog leadership bi ñu am li nga xamante ne moom mooy gis-gis bu xereñ ñu ñëw si li nga xamante ne moom mooy di challenges li nga xamante ne lim nga ko nii yëpp mu nekk lu am solo te jii UDP as a political party lan lañ góom si ñaari nii mooy ne nguur euh, dafa war a nekka li nga xamante ne suñu toogee euh, diir moo xam ndax fukki at la euh, ku kooku noonu ku toogoon war naa mun a bàyyi police yooyu mu continuer waaye moom mu wàcca wala nu mu gën a yàggee noonu la mu gën a amee expérience. parce que ñeneen ñi loolu lañ wax. non xam nga démocratie la ñoo doxal. ok waaw démocratie nag dafa am lu mu laaj. mooy ne nit ñi ñoo laa taana ñoo laa taana ci ay kaadu wala ci ay sarta ñëw nga ne ma li di ma di nga di nga ma di isil developmental state di nga ma isil uh, uh, state capitalism di lii ngaa def lii ngaa def ak yooyu la ci diir bi nga ko mun a def ma sànni la carte dafa mel ni dañ am d'accord dafa am dañ dañ am contrat so léegi su fekkee ne loolu xew na uh, su time boobu jotee da nga war a décommissionné da nga war a wàcca da nga war a delluwaat ci nit ñi ne leen ah man maa leen waxoon lii nii laa mun a def waaye soo leen ma joxatee beneen euh, mandit dinaa mun a euh, jekkali li maa def benn nguur mun ta jeexal liggéey bi war a dox ci réew mi loolu loolu yàlla rek moo ko mun euh, nit mbiram sottiwul mm-hmm. so loolu moom buñ ko boole especially su fekkee ne yaa ngi ci démocratie ndax démocratie lim laajte rek mooy ne nit ñi ñu teg la fa. ok it doesn't matter lañ la fa teg. waaw waa su fekkee ne nag loi am na ne danga war a am ñaari taam because dama laa jox misaal rek gis nga Macky saal bi moo jë bi moo daaneel président ab Wade et Sénégal taam bi seven years la woon moom bi moo campagne mu ne moom five years la bugga mu dem constitutional commission bi eh, wala constitutional court bi Sénégal ne ko ah déedéet lii amuloo mandat bi foog nga dem référendum sénégalais yi wax ndax dañ bugg a five year term or not so dafa dem seven years bi bi mu jeexalee loolu euh, this year ñu defaat élection bi amul sax deuxième tour te moom mu ngi winee deuxième tour so liggéey rek mooy mun a tax political euh, operator nga mun a nekk ci place te jamono jooju dafa passé wax ju dul jeex dangaa def ñu gis loolu moo am solo defal ñu gis euh, wax bi euh, dafa jamono wax dafa passé Mr Tall moom moo wax loolu Mr Tall ñu ñëw si euh, beneen mbir bi nga xamante ne léegi ni junj nga ko ñu gis ne li nga xamante ne moom mooy UDP National Assembly members yi te UDP bokk si li nga xam ne moom mooy coalition bi am na ñeena seen député tey ji ñu ngi ŋaaña li nga xamante ne moom mooy président bi pour mu wàcce su ñetti at yi jeexee wante coow li dem na ñëw na ñu ne fu mu dooree mooy parti leader bu UDP bu mu waxee ne su président bi continuer lu su fekk fekkee am ñu ko bëgg a forcé mu wàcce lu gën a néew ñetti at mhm. dina génn yóbbu ñooñu noonu koot mhm. ah tey jii gis nañ ay député yi nga xam ne UDP lañ nekka mhm. ñu ngee pour presso président bi mu wàcce te dégguñ parti leader bi mu yóbbu leen koot gom-gom la assez political party o dañ doon jéem a nax askan buy eewoo si réew mi non am nax na na na naxante nekku ci ok parti leader bi wax na loolu loolu leer na ñëpp waaye parti leader bi contexte bi mu ko doon waxee mooy ne moom constitutional lawyer la moom mu ne dafaa defend constitution bi waaye moom xam nga moomut court house bi moom parti lii rek moomut court bi su fekkee ne sax yóbbu na nit foofu noonu court bi dëgg bi la ñoo taxawal rek waaye nag affaire yi these three years five years du affaire yi loi du affaire yi court lii political agreement la woon te du benn affaire rek dafa am affaire yu mu bokkal exactly loolu nag waa dëkk bi duñ ko dee bugg waxtaan parce que coalition bi ñu doon wax ne moo génnee fii Yaya Jammeh li tax ñu taxawal ko because dañ fiil ne suñ defutee coalition duñ mun a dem waaye balaa loolu ñun UDP dañ ne mbooloo bi nekk Gambia fii ñi ci ëppa UDP lañ àndal UDP lañ faral. si opposition si boobu jàmm ñu ne loolu loolu loolu amul. ba tey ngir réew mi. ñu ne Orange nañ bokk affaire ñu ne dañoo def primary flag bearer bu nekk mun ngaa ñëw su fekkee ne independent nga sax mun ngaa ñëw waaye foofu rek la am de soo ñëwee dangaa sol sa mbaxana pati soo jaalee dangaa resign sa pati mhm. ñu ne ba d'accord président bi toog Gambia léegi kan moo ko xamoon Gambia balaa moo UDP balaa moo nekk flag bearer UDP. Ah, few individuals parce que taxawoon na fi nga xamante ne moom mooy Jimara. waaw constituency. waaw in year 2002. dafa luus. waaw dafa luusoon ah, si ki nga xamante ne kenn comme jongante la nu again in 2016. ah di Mama Kande. waaw yeah. so ah, pour tey ñuy wax ne UDP UDP du ne benn benn benn nit la. ñu di fii yi am nañ seen baat am nañ seen right te ñoo dem si léegi député yi wax liñ liñ ñoom liñ góom waaye ñun ACP parti jëlanguñ position ci affaire yi three years bi la suñ exécutif bi ñu ngi ñu ngi waajal meeting am naa ci lu bañ a yàgga dinañ am meeting waxtaan ci parce que dégg nañ euh, members of UDP ñu ngi wax lii euh, parti leader bi wax na lii waaye eh, gaa gaa yi eh, tamit ay Gambien si lañ de. am nañ eh, raay bi am nañ coobare bi pour wax ñoom naka lañ ko gisee. comme doomi réew. waaw comme doomi réew. ok waaye miinut ne lii mooy position UDP wala lale mooy position UDP. <coughs> nga wax fi lu am solo euh, ñaari mbir yi nga xamante ne dinañ ko junjaat léegi nii UDP euh, euh, li nga xamante ne moom mooy nangutoo buñ am ak askan bi nit ñi xamuñ woon léegi nii di den président temps bu ñu bëri xamuñ ko woon rawate na si boor bii nii UDP la nit ñi xam UDP asi ko na nit ñi gëm ne UDP kuñ tànn rek ku baax la Euh, parce que ñoom ñoo nekk di biggest opposition party jamono boobu. Mm-hmm. ñu tànn ki nga xamante ne moom mooy jamono boobu seen candidate mu nekk euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, Adama Barrow tey jii mu nekk président jamono buñ ko tànnee ndax UDP dañ doon bugg na askani Gambia bi rek wala comme ñu ko di waxee dañ tànnoon ki nga xamante ne ku xereñ la. ah parce que compétence yi bi léegi nii waxoon nañ ko si biir waxtaan bi mooy li nga xam ne moom mooy ku ñu tànn dafa war a mun a nekk ku xereñ am xam-xam bi UDP naka lañ tànnee ki nga xam ne moom mooy candidate bi jamono boobu di candidate Adama Barrow tey jii mu nekk ay presidential candidate ñu sànnil ko si an independent ticket of a coalition of eight political parties wala seven ak benn independent mm-hmm. waaw non euh, tontu boobu moom euh, lu yomba la ndax ñun dañ am processus boobu lañ dooree su waxtaan bi mm-hmm. internally dafa am ni ñoo tànnee candidate comme que yow da nga ci parti bi te waxoon naa ko tamit ci ne euh, constitution bi ñu amee 1997 constitution bi moom lim laajte euh, loolu dafa néew torop pour nga jiite réew. Mm-hmm. te li taxoon Yaaya Jaame def ko fa ñëpp xam nañ ko parce que moom foofu la <laughs> euh, xam-xamam amoon. ok loolu ñurut ne du loo xam ne lu ñu war a mun a toppala wala loo xam ne la lu baaxul la sax. parce que euh, euh, am kayit wala jànga dem am PhD wala am masters wala nga nekk lawyer wala li yooyu yëpp eh, façon yi jànga la rek jànga bi gën a am solo mooy naka ngaa def ba ñi nga xam ne ñoom nga bokkal jamono yaa ngi leen a mun a euh, jox njëriñ yaa ngi leen a mun a jiite yóbbu leen foo xam ne moo génnoon fi ñu nekkoon so ñun bi ñoo def suñ congrès bi fële eh, Basse Euh, parti leader bi si boppam wax na ko ci interview bu yàggul nii mhm, mhm. ne daf ko wax nit ñi ne leen look euh, loi bi nekk ci dëkk bi dafa dafa ne man ku mel ni man waruma mun a taxaw élection loolu la constitution bi wax parce que temps boobu amoon na sixty five nañ leen ut keneen moom explain na affaire yi ni mu demee mhm. waaye bi ñoo taanaa Adama Barrow fekk mu ngi prison ok xam nga nit ñu bëri dañ dee fàtte loolu. <clears throat> non bon njiit bi moo nekkoon prison bon parti bi mu ngi doon dox. non parti bi senior leadership yëpp a nekkoon prison. ok euh, léegi su fekkee ne euh, yow sa uh, bi. ci boppam nekku fa. ok deputy treasurer treasurer bi nekku fa. all the senior leaders kenn nekku fa. deputy party treasurer bi. Mm am na qualification bi nga xam ne moom la loi bi teg. Mm. nit ñi taana ko loolu is a uh, is a uh, is for suñu démocratie bi <laughs> uh, Mr Tall ñu dellu si si December 2018 still on the challenges ñu eh, lu ëppa euh, si li nga xamante ne moom mooy constitution euh, lu mu dee wone rek mooy ne euh, li nga xam ne moom mooy constitution bi boo nee nekka di supreme law moo xam si réew wala si organisations ou political parties hmm. ñu gis gannaaw congress bi am na nit ñi nga xamante ne dañ leen tànnal dañ leen tànna si congress diir afta boobu noonu ñu ñëw dégg ak kàddu yu jógee si li nga xamante ne moom mooy njiit bu United Democratic Party ni ñu ñu xaloon nañ leen si parti bi te doomi réewi parti bi la ñoom ñu amee woon yu am solo Euh, si li nga xamante ne moom mooy si parti bi ak euh, li nga xam ne moom mooy regional level ñeneen ñi ak constituency level. waaw xanaa nga leeral ma rek waaye man dégguma mosuma dégg parti leader bi de mu wax ci affaire yi euh, ñuñ génnee place. o óor na ma ne am na constituency yoo xam ne ak regions yoo xam ne ñu ne ñoom ñiñ électoon si seen congress xam nga congress bi dafa nekk à three levels da nga am ward level mm. constituency level and regional level then nga ñëw am national congress waaw yow su fekkee ne yow yaa ñoo bokk affaire at the constituency level mm-hmm. affaire yi liñ la liñ la dénkoon nekkuloo di ko doxal war laa mën a génne loolu euh, every club moo amee loolu loolu is at the constituency ak regional level. si ban anam lañ la war a foog naa foofu lañ bëgg a waxee. non loolu laa wax ma ne loolu euh, suñ constitution bi moo ko provide. ok waaw ne su fekkee ne yow you are not euh, participating in party activities. ok nekkuloo tamit di euh, wone sa boppa ne yow yaa ngi ànd ak parti programme bi obviously ñi la ñi la elect am nañ every right pour ñu recall la. Euh, ñu élect koo xam ne mun naa mun naa toppatoo seen affaire loolu suñ constitution moo ko wax very clearly amul nag euh, to do with any executive euh, action because dañoo inform executive bi rek oh. dañoo inform executive bi ne leen ñun suñ kii councilor bi wala suñ lii nekku di participer si suñ activités mm-hmm. ñun suñ parti bi dafa décentralise e-, every time di nga dégg programme or activity in one side of the country boo xam ne sax man duma ko dee yëg ok that is li nga xamante ne moom mooy di. regional level. waaw ou at constituency level. yes ok ah, kon léegi dégg nañ ko Mr Tall mu ne ah, ñi nga xamante ne am nañ concept bi ne party leader bi moo daaxa ñi nga xamante ne ñu ngi wax ne dañ dem supporti ah, président Adama Barrow Mr Tall mu ne président bi ki nga xam ne moom mooy bi daaxul leen ñu leen daaxa mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo leen taboon teg leen si position boobu at regional level waaye nekkul an executive decision Mr Tall góom-góom bi nga xamante ne moom la UDP as a political party am. réew mi lañ euh, gom au political party lead lañ gom ah, si li nga xam ne moom mooy wàllum jiit ah, pour ma gën ko break down rek for a better understanding ah, dañoo dégg léegi-léegi ku ne euh, diw sangam di ku baax la waaye bokkul political party bi so as a resource mënuñ koo jël te mu suñ ko jëloon mu mun a bokkal lu yokkoo lu bari si lu yóbbu réew mi kanam waaye mënuñ koo jël parce que du doomi parti bi mënuñ koo jël parce que bokkul ci parti bi au léegi-léegi ñu xam ne diw xam-xamam waaye ñu bugg a koo pour mu ñëw mu liggéey mu ne déedéet man mun naa liggéey mun naa waaye mënumaa liggéey ak li nga xam mënumaa bokk ay political party because already dafa am image bi nga xamante ne léegi nii wax nga ko si biir waxtaan nit ñi dañ ko jox politiciens yi mm. so it will take time bara ñoo change that concept waaw waaye as a political party ñaar yi ban ngeen si gom no ñaari yëpp lañ gom because foog nañ ne politique bi war nañ koo bàyyi ci loxo ñi nga xam ne mun nañoo doxal mun nañoo euh, xàmmee euh, lii réew mi laaj si jamono jooju noonu waaye koo xam ne tamit dafa bëgg a nekk an independent euh, technocrate kooku tamit foog nga jox ko gidaam foog rek nga understand ne du ñëppaay war a mun a bokk ci politique bi wala sax ñooy bokk ci parti bi so loolu nag euh, waxtaan la boo xam ne euh, su ëllëgee su ñoo defar constitution bi war nañoo seet loolu bu baax because dangaa gis tamit ne because yaa ngi UDP government bi oh, président bi ne yow doo mun a am benn liggéeyukaay ci euh, réew mi fekk sax sa qualification euh, euh, jox na la place bi gis nañ ko du benn yoon du ñaari yoon fu dafa mel ni ñun suñ gis-gis léegi réew mi mun ngaa def lu la ne mun ngaa wax lu la ne mun ngaa rey ay nit sax ñu bàyyi la waaye su fekkee ne yaa ngi UDP ah non loolu moom you mun loo wax dara so loolu nag war baax na tamit waa réew mi ñu seet ko because UDP liñ gëm Euh, mooy ne réew mi ñun ñëpp a ko bokk ñun ñoo bokk ndey ak baay euh, ku nekk xij na fi te liggéey bi bi ñu war fu mu nekk nii dafa bëri ba nga xam ne ñoo mën a wax ne kii nekkut euh, nekkut fii nekkut fële. ku mun a liggéey rek nañ ko jox liggéey bi te liggéey suñ koo joxe tamit nañ ko nañ ko teg ci kanami askan bi koo xam ne nga ne yow mun ngaa bëree mànga dee wala mun ngaa bëree balagee nga dem ci arène bi rek. <laughs> na na na siiw na feeñ. waaw na ñëpp gis gis ko. ne ah you know Omo ah, Sène moo daaneel kii ñëpp xam ne noonu la demee. waaye you know réew mi nag moo egut ah, level boobu. waaye ñun ni nga xam ne ñu ngi toog di waxtaan façon yi waxtaan yi dañ war a bañ koo xam ne yaafus la koo xam ne xamul dara mënul dara mu war a amee place di ko doxal loolu dañ ko war a bañ. loolu gan doomi Gambie yëpp dañ ci war a jóg. parce que yow su fekkee ne yow sax yow xëj na yow jànguloo waaye sa doom mun naa jàng wala sa mag mun naa jàng wala sa jarbaat mun naa jàng dañ war a eh, eh, rafetal si réew mi fii ne jàng ak mun-mun lu am njëriñ la ah, ndax suñ alxuraan moo ñu jàngal loolu mm-hmm. aaya bi njëkk a génne suñ alxuraan lan la wax mooy ne jàngal yow yonente yàlla mm te kooku kenn génn ko ci mbindeef so loolu li yii dafa nekk yoo xam ne dañ si war a sérieux fu mu nekk nii réew mi waruñoo toog nga isi almaamitaal mu wax lu ko ne dañ ko war a challenge wax ko ne ko lii ak lii ak lii foog ñu ñu ñu war a mun a wax dëgg bi nekk ci réew mi waaye fii ñi ji ëpp ci ñi nekk ci affaire politique bi astuma ministre yi toog ci gannaaw e, boori président bi ñooñu ñooñu la dëkk bi war a jógal campagne parce que ñooñu xam nañ li li correct ak li correctul te bés bu nekk ñu ngay nekk di jéem a Euh, euh, ici euh, dëkk bi ci ay level yoo xam ne dafa dafa tàngal sa xol. waaw waaye Mr Tall foogaloon na tamit li nga xamante ne moom mooy salary bu ñoo receive liggéey léegi foog nga protect li nga xam ne moom mooy sa interest and then sa interest mooy ne soo demee against ki nga xamante ne moom moo nekk si kaw ndax di nga mun a maintain li nga xamante ne moom mooy sa salary. waaw waaw sëñ bi loolu yoo demuloo against kenn. ok liggéey boo gis si Gambia fii si luwaa la tegu. si yoon. ci yoon ci luwaa la tegu président office bi dañ ne soo ko buggee nekk lii ak lii nga mun a def ministre ni da nga soxla ministre bi da nga soxla ministre bale danga soxla directeur fii da nga lii yëpp dafa am si sarta yum tege bu mhm. ne eh, dafa am ku la koo jox waaye ku la koo may. non waaye président bi moom la luwaa jox doole pour mu tànn ministre. waaw te moom la luwaa dox pour mu daaxa ministre. waaw léegi. waaye luwaa boobu dafa set. li tax mu laa def ministre mooy pour nga nga aide ko mm-hmm. wax ko li gën si réew mi loolu tax réew mu jox ko doole boobu mm-hmm. loolu dañ dañ war a understand loolu mais doole yi nga gis nii ci affaire yi euh, nguur ak affaire yi euh, jiite réew dañ ko dañ ko xool bu baax a baax balaañ ko faa def ndax soo ko defutee dangaa am jaxasoo ci réew danga danga soxla ministre yoo xam ne dañoo wax dëgga dañoo dox dëgga dañoo liggéey waaye nga am ñoo xam ne dañoo toog foofu rek di jéem a jaxase nit ñi di jéem a wax yoo xam ne euh, amalul kenn njëriñ ok euh, nga wax lu am solo euh, da nga a xool li nga xamante ne moom mooy lu yóbbu réew mi kanam waaye nekkul li nga xam ne moom mooy njëriñ ko ñu fa teg Mr Tall finally bi nga xamante ne moom mooy gis nañ comme ni ñu ko dee waxee rek di disintegration of the marriage between ki nga xamante ne moom mooy président bi ak UDP comme ni ñu ko dee waxee mooy sëy bu tas bi ñu gis bëri na ñi nga xam ne dañ nekkoon on foreign affairs appointment Ah, ñu ngi commencé di delloo si ñeneen ñi ah, wàcce leen li nga xam ne moom mooy liggéey bi ah, si media bi nit ñi am si different views ñii ñu ne ñu ngee delloo si doomi UDP ñii ñu ne déedéet nu ñu leen tànnee woon moo jaarut yoon parce que dañ leen defoon li nga xam ne moom mooy népotisme dañ tànn doomi UDP yóbbu leen liggéey moo tax ñu ngi leen a delloo si président bi dafa xam ne gars yi amuñ xam-xam bi moo tax mu ngi leen a delloo si loolu man daal li ma ci óor ne Kemeseng Jammeh fooguma ne kenn dina wax ne kooku népotisme moo ko def ambassadeur waaw eh, li ma óor ba óor ne gars am nañ contrat mm-hmm. liggéey bu nekk dafa am sarta contrat bi jeex na eh, two years contract la woon waaye su suñ gis-gis liñ nekk UDP moo tax eh, waxuñ ne ñu seen place waaw waaye eh, pour wax ne eh, eh, népotisme moo tax ñu appoint kenn waa UDP loolu dama foog ne dañoo tooñ UDP rek waaye loolu moom munta am ndax UDP parti boo xam ne la yaa ko fi wax ci dorin bi li ñu dal Gambia fii waxuñ ne dalul kenn de waaye li ñu dal métti na yaa boobu probably because yéen a nekkoon tamit di biggest opposition party. waaw ba pare looloo tax tamit tamit uh, place yu am nii yëpp ci government ci national assembly bi ci local government yëpp dafa wone rek ne uh, lu mu yàgga yàgga uh, mbooloo bi ñu toppa yàlla dinañu jox tawfiix dinañu jox wér ñu jox place sa taasee boobu tas na de lu waraloon mbooloo mi de. fu mu nekk bi there is possibility ne dina taxawal boppam te su taxawalee boppam dina am ñu ko toppa te ñooñu mun na ñoo jógee ko si UDP. waaw ah, parce que suñ xoolee li nga xamante ne moom mooy di scénario of GDC ak APRC. Mhm. Ah, mun naa dal UDP ak président ba. ah loolu nga foog. mun naa am. loolu mun naa am loolu mun naa am ndax xam nga euh, li li li ñoo wax rek euh, li am euh, solo. Mhm. ñun su suñ gis-gis. ok mooy ne. man Almami Tall bokk naa UDP mun naa wax lii tey mun naa wax lale ëllëg mun naa nekk ci lii tey mun naa nekk ci lii ëllëg waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon UDP démba ñu demuñ fenn candidate si ak euh, opérateur si waaw am na ñuy ñuy cappi am na ñuy def lii ñu wax lale waaye élection dina ñëw elections dina ñëw Mr Tall loo bëggoon a ñaax askan bi ah, si kaddu yu mujj ah, wala su fekkee am na li nga xam ne bëggoon nga ñu waxtaanee ko te junjuñ ko ah, mun nga koo tënk rek si nu mu gën a gàttee si kaddu yu mujj. waaw waaw no rek wane suma suma mbégte parce que léegi moom fu mel ni man dañ maa oo ci waxtaan yu mel nii yu bëri waaye yow sa waxtaan wax dëgg yàlla kontaan naa ci torop torop torop parce que eh, li si am solo mooy ñu déggoo. ndax euh, réew soo leen ci nekkee da ngeen war a yéene wante jàmm euh, di jéem a liggéey di gën a xamante ba pare di gën a miinante euh, li xew ci Gambie fu mu nekk nii mooy gis nga boy si nga xam ne ñoo doon def protest ou manifestation jàpp nañ leen weekend bi yëpp ñu ngi leen teg benn bërëb léegi bàyyi nañ leen ñu ne waa dañu war di dem ci police station bi yii yëpp euh, yoo xam ne la euh, jaru ko ndax euh, su ma mbokki soosee ñu ne benn buur kooku jamonoom mm-hmm. du jeexal jamonoom mm-hmm. jeexalut àddina waaw àddina soo ñu bàyyi suñ xel rek ñun ñi nga xam ne yàlla jox nañu kaddu wala yàlla jiital nañu ñu xam ne nit ñi ñoo tax ñu nekk fii ñu jéem di déggoo di jéem a waxtaan gars yi ñu jox place police yi ministre yi la ñu xam ne place yooyu nit ñi ñoo leen ko jox nit ñaa tax ñu nekk fa waaye ñu nekk you know di di jaay yoo xam ne daal maamara day taani kenn xamut naka laa demee saa yoo li fi ne rek police yi ne dañoo dañoo jaay doole li kenn kenn ta understand lii soo waxee ñoom ñu laa ne la waaw luwaa bi lii loi bi la li loi bi dafa am ko ko fa def damaa ñaan rek Gambien si ñu ubbi seen boot seet ndax ñi fi nekk ñoom la ñoo liggéeyal ndax dañoo liggéeyal seen boppa élection dina ñëw. su boobaa nag ñu xam euh, naka la affaire yi tegee parce que politique bi nga xam ne njëriñu kenn gannaaw ay euh, ñaar ñetti nit loolu politique boo xam ne mun naa am mujj. ah kuñ dalal tey si li nga xamante ne moom mooy up this morning di Mr Tall ah, Mr Tall jógee ko fi nga xamante ne moom mooy United United Democratic Party mu nekk seen spokesperson ah, dégg nañ li nga xamante ne wax na ko dégg nañ gis-gis yi nga xam ne wax na ko ah, su fekkee ne li nga xamante ne moom mooy comme ni ñu ko dee waxee rek ñun dañ dee keep records bés bu UDP demee tamit ba toog si nguur dinañ bugg di asiwaat some of these audios ak some of these videos Mr gis nañ kenn mu ne su toogee ñetti at la moo toog dañ bañ ko play audio yi mbaa ëllëg ak si suñ asee soj virus du ah, naxari UDP su fekkee dem nañ ba toog si nguur. ah non non non loolu ñu naxari man dama foog ne dañu dañu war a miinante ñu bàyyi you know dangal bi la foog ne daal suñ mun-mun la wala suñ am-am la moo tax ñu am place yi la place yi nit ñi ñoo la ko jox soo fa nekkee dafa liggéey nit ñi soo ko defee élec su élection ñëwee ñu sànni laat la karta waaye di jóg di ah, tiitaru di dóor sa dënn di wane nii na na naka su dul noonu loolu daf ko jaru ndax vidéo vidéo yaa ngi fi audio yaa ngi fi jërëjëf Mr Tall si waxtu boo jël rek pour waxtaan ak li nga xam ne moom mooy Star TV up this mm. morning ah, dina continuer ëllëg ñu dala laaj fi beneen ah, naataango comme ni ñu ko dee waxee rek duñ xool li nga xamante ne moom mooy politics rek ah, generally everything li nga xamante ne affect na Gambien si démb ñu ngi waxtaanee économie bi tey ñu ngi waxtaan mbiri politics ëllëg ñu asilaat leen beneen waxtaan kon ñan ñu jox leen ndox daje ba ëllëg thank you very much up this morning fii la ñoo tàggatoo rek ba ëllëg incha allah ñu continuer waxtaan bi jërëjëf sama mbëggeel ci yow lu dëggu la ba su ma la gisul